ma papa ji sama waaw teraanga yi day ñëw na moom goro day am njariñ. <laughs> macha allah waaw goro moom day am njariñ moom sëñ bi jóob loolu c'est normal. man de léeg-léeg mu juum jékki-jékki rek xoolal faq saru rek yónnee goro yi dix mille wala quinze mille damaa waaw bu ko defee sa xoolal bu ko defee sa maire yi ne ah moo ne goro baa ngi bàyyi xel ci téyel ñu ko ba noppi te léeg-léeg mu. jékki-jékki faqasalu yónnee ñu njëgu woyofal. Hmm. léeg-léeg ma jékki-jékki faqasalu mel ni ku yónnee yónnee lu ab cent mille léegi dix mille la. il faut nga xool xoolaat zéro yi gis ne ndekete ngoro waaye baax na ba tey dégg kon nag asalaamaaleykum wa rahmatulah. waa senegal yëpp macha allah nuyu nañu nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo saxoo di seetaan euh, 2A TV comme ni ko soxna Amina di waxee di seetaan ba noppi nag euh, di. Euh, di fay te dëgg dëgg fa yàlla daal amuñ seenu pay ñu nuyu nag ñëpp jiital nuyoo bi nag waa Sénégal yi nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew sénégalais yi nekk ci bitim réew les sénégalais de la diaspora saay yi mu egsee ci ñoom damay taxaw daal di nag nuyu leen bu baax a baax a baax a baax ñaanal leen yàlla yàlla suturaal leen yàlla jàppale leen yàlla aar leen waaw bu ko defee nag ñu nuyu nag ñi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi ña nekk ci bitim réew nuyu suñ kilifa aada yi nuyu suñ kilifa diine yi euh, imaam yeeg ñu xalif généraux yeeg l'église catholique bépp diine bu sénégalais mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu le clergé nuyu tamit ñi nga xamante ni daal ca dëgg-dëgg nag ñoom ñooy suñ kilifay politique euh, ca bopp ba son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye son premier ministre Ousmane Sonko l'ensemble du gouvernement ñi ne ci public bi yëpp administration bi ñu ngi leen di nuyu nuyu itam ñi nga xam ne ñoo ne ci privé bi. ñun ñi nga xam ne tam ñoom ñoo nekk ci secteur informel bi bépp secteur fu sénégalais ne ci biir réew mi ci bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu soxna jaara nuyu nag bu baax a baax a baax daal euh, ca dëgg-dëgg jàpp <laughs> yàlla yàlla. dolli sutura yal na dool dolli xéewal ci nim réew réew mii ay nii moo raw suppa kànja jaxasoo na jaxasoo na honorable da ngay tëdd une seconde boo ko kaa yëpp raw la non non non non non nelaw wóoratu non déggoo bi démb nelaw moo ba fajar ne pare rek kenn nelawul démb nelaw moo fajar kaa yi di def ni si si si bopp bi jàpp ma yëpp soose li wéykat bi naan xale yi kenn nelawatu ba jàmm dëkk bee raw supp kànja waaw moo soo see démb maag téléphone bi léegi ah. ñee ñee ànd nañ ñee ànd non àndoon nañ ba ci yàgg réunion ba mujj naa tas am na jubóowuñu gaa yi jubóo nañ ñett ma ne man yàlla bu ma dee wóo war a raw ngay soo sa bay xaw a rek ñetti xibaar raw la am ko am ko woote non dalay raw nelaw moomu fajar ne pere rek man daal maa ak nii ak nee ma ak nee ma nga ca pale ba maa nga ca nee opposition ba maa nga yëndu di yëndu di leen yëndu di xool la fa xew maa nga ca daanaka ba fajar ne pere rek. fu ne sonn nga. non ko xool xam ne ne la. non lii du jàmm waaye lii ci du jàmm nii nañ ñëpp. de kaay dafa teg loolu dañ ko waroon a dañ ko waroon def dañoo waroon def semaine bu nekk ñu dugal benn. dafa dul xëj mais lii c'est trop. dafa dul xëj leen di seet moo teg. jumaay pièce bi la wax naa ko gars yi. ñu sax àttanuñu kaar piège la de waxoon nga ko de. nañ dem du ñu xam ne piège la lu dul buñ ne suba la campagne bi di ubbi zéro heure nañ dem rek en tout cas daal euh, nuyu nañ ñëpp nuyu nag euh, suñu benn grand boo xamante ni nag euh, ma nga nekk États-Unis grand Diop Thiam grand Diop Thiam lu tudd kilifa gu mag a mag a mag la nag Amérique. waaw nekk fa yor fa métier boo xam ne tamit daal ci dëgg-dëgg waaw ci waa kër docteur yi la bokk waaye daal cadre la kilifa sopp na leen genn xeetuk sopp goo xamante ni nii waaw ak euh, sëñ bi Diop tamit ci Angleterre waaw moom maa ngi koy nuyu tamit bu baax a baax euh, sugu suñu grand benn grand bu nekk Amérique nee na daf la bëgg a may doomam da yàlla rek tax. Oh. yàlla rek tax benn doom jaa ngi Angleterre nee na beneen doom ja ma nga Amérique nee na waxal sugu moom bu dee d'accord na Ahmed man maa koy may. day d'accord non ko avion d'accord nañ. nee ko nee ko ok. il a dit a mais non non la mu wax yëpp yëpp yëpp sax. Ah, waaw. ñoo doon lekk. la sant de. boobu la sant de te ndeyam kat Awa Gueye mii yooyu sunduur doon wéy moo hmm. eh, jur ndeyu gone gi ma waaw waaw ay kilifa lañ de am na ko toog si wet bi dañ la mën nag ah, yàlla ah, def naa ah, mën nga am ba ñeent yëpp xool leen sama loxo ci suuf ay photo ki vidéo lépp dañ ma yónnee lii tamit <laughs> daa fowul daa fowul daa fowul dafa ne yow il faut ñu takk na moo tax buñ la takkul doo takk am na dama leen a dégg ngeen ne am na ñoo xam ne robe de euh, robe mariée bi am na koo xam ne engagé wu na pour indil ko sukk ah, am na koo xam ne nee na euh, indi na jingeer yi ak bisaab ak beñe am na keneen koo xam ne nee na fi su góor a dëkk ak soxnaam day jël engagement ma dégg mbir mi na mu tasaaroo mu bëgg a dajale lépp. lépp pare waaye que muy indi te doom lay ne. ayoo match bi <laughs> léegi nag soose. ah ah. gone ah, sugu neel waaw. neel waaw bu waxul waaw de ñu tey ko ci gàngu gi <laughs> mos nga gis ma ma Maria Sorcé ah, ah, nit ñi. boo nekkoon ci ay relation génn fa. su ko sonn ci neel waaw ba bàyyi cas sociaux yi soosee nga waaw. moom <laughs> la koy réglé ba mu. li say mag ak say baay. di dund ci dina réglé problème li say ndey li say baay di dund ci cas social daa doy. dañoo bëgg ku ñu ku ñu. ku ñu dimbali. ku nekk na dimbali. barkaal du pièce. billaay ku nekk nga deenal na ko dimbali. wóor na yàlla duma jomaay. barke yàlla du ma joomaay am na du joomaay joomaay du amet du ma joomaay lii du piège. piège la joomaay yi moom ñëpp xam nañ ne lii piège la. mais man wóor na yàlla kilifa la kilifa. honorable déggoo ma de daf ne dama bëgg subu. ah day bu la bëgg dem. waaw dama ko dama ko dama ko xool rek bëgg ko. léegi nag moo xool man lan war a mën a defaral subu. te comme que boobu ba léegi. xanaa muur ko mu sëyi rek. <laughs> suku daal faaw nu muur ko yépp ko. faaw nu muur la yépp la. yépp la ci roppalaan gi. mu sëyi États-Unis yow. man de ci topp man de may nekk topp. defee ngay fajaru à distance depuis États-Unis. c'est ça voilà kii mooy nekk topp bi. may nekk bi soxna Jaara moom moom moom sa doom day. am na lu ko tënk mën naa looloo war a tax nag fi mu ne nii ci lii. waaw conférence yi fii kii bi yow am sa micro. amoon micro te yow mais vraiment papa xale bi bëgg na na. yow nee na message nee na ma joxe moo nee moom tam joxe waru gar. ah. Eh, lii la. lii la lii. maa joxe warugar da ngay nangu wax la fas. lii lii lii te am ko wane direct wax ji jeex. merci beaucoup Dao. fii amul lu mu fiy réfléchir. laissez-lui le temps de réfléchir. xel réfléchir réflexion amu fi. man kay njëkk bi ma jox ma sa micro. mën naa day gëmm takk. gëmm dóor. day gëmm takk suñu grand suñu grand mënoo nuyu léegi États-Unis nee mi ngi seetaan nii direct. Hmm. yónnee na message waaw. jaajëf grand Diop Thiam. waaw na ko nuyu ñaanal leen yàlla. na ngeen koy nuyu dañ leen war a ñaanal yàlla. Sénégalais yi nekk ci bitim réew. wallaahi mënuñ leen a fay deux fois. am na am na ku may message nii de. Ndiasse hmm. Ndiasse hmm. waaw Ndiasse Ndiaye ma nga Oklahoma City moom it. est que. waaw nee na ñun ñooy médicament médi ay médicament am sans ordonnance. dégg nga loolu waaw kon Ndiasse Ndiaye ñu ngi lay nuyu depuis États-Unis xam naa bu sugu euh, ñëwee ndax danañ ko danañ ko danañ ko yëpp danañ ko muur yëpp ko ci roppalaan gi mu sëy man de sama wax du ci bari. bu dee sëy bii la moom la la yàlla ji di dogal. sa bakkan teg mm. bii nii bii. Mm. bii kay sugu dinaa ko wax lu leer lu muy nimiti. alhamdulilah sugu wóor yàlla na mbir mi sotti sugu. un célibat de moins. Hmm? xaw ma un ma koy boo amoon gàttal tànkam toog. mais honorable saa yi buy doxee yóbbaale ko nag. loolu du ma arrangé. man plateau bi yëpp man dong maa ciy nekk célibat du ma arrangé. paa bu am naataango nag. su ko xale bi yuuxoo na noppi te xale bi sax du ko yuuxoo ndax kii moom famille bi mu bokk tarkalla yar nañ leen ci siraatal mustaqim. macha allah waaw yor nañu diine fàttewuñ seenu cosaan. macha allah da ngay julli da ngay woor. da ngay làkki wolof. sugu dina sëy de. par force dina A ou ci nii ak ci nee. sëy moom ni ko def. sëy moom force la sëy rek ba ñaan ci njëkk ba. ñaanuñu ko di njëkk de. gëmm gëmm sëy mu nekk topp bi. gëmm dóor. bu ko xëy sama teraanga gi nag. bii moom li ma def ci kaw jaara laa ciy def. ba mu dër sa bakkan nga si teg. waxtaan bi amul ñetti fan. damay topp logique bi nii. yow wax nga dëgg de kon maa si toog kon leen sama tur leen nekk xam defaraat sama kii ma wóoratul. réew mi moom ni mu jaxasoo bu yeboo rek ku nekk wut foo góoru. ku nekk am foo wéeru. mooy yoon na. premier ministre bi wax na ko de. bu yeboo ku nekk na nga dem wuti foo wéeru. wut wéeruwaay. non eh moo wéeru ci famille am. Mhm. mais jarul neex. dëgg la. waaw ah, loolu de dafa jaxasoo kii na da ngay ñoo xam ne ñoo am problème mu xaalis kii kii nii ñii dañoo am problème mu kii mais moom problème ah, moom mooy xam moom problème bi. kan mooy awa kan mooy ñaareel. suñu may ñu waay. kooku de suñu yoon nekku ci. na ko dem. laaj xaaral ma nopp balaa ma fay wax te réew mi fi mu ne nii fi mu toll nii nii de daal doy sëkk sëkk. non daal instant bi nalaw sax wóoratul. déedéet da ngay nalaw cinq minutes yeewu. merci beaucoup euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax voilà continuer leen aimer partager euh, live bi su ko defee ñi nga xamante ni jotaguñu seen notification ñu mën ko daal di.